wa li qawmika wa sawfa tusaluun suratu zuxuf ay ñun fukk ak ñeent yàlla nee na wasal laajal yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man arsalnaa képp ku ñu mës a yónni min qablika lu jiitu ñu lay yónni min rusulinaa ci suñu yonent yi na nga laaj yonente par yonent téeméeri junni lañ ak ñaar fukki junni ak ñeent junni nanga leen laaj benn par benn loolu la arab di wax ala sabilil fard ala sabilil fard nanga leen laaj kenn par kenn loo leen di laaj ajaal na ndax mas na ñoo def ñun yàlla la tàmbulee ca nooxun ba ci yow mi min duuni rahmaani ci keneen ku dul yàlla aalihatan ay yàlla yoo xam ne yubaduuna des na leen jaamu te teg ko ci njub mu ne ko loolu laa bëgg nga laajal ma ko yonent yépp alayhimu salaatu wasalaam na nga leen laaj ndax benn yonent mas naa ñëw ne nit ña na ngeen jaamu yàlla ak waaw nga laajal leen ndax dangeen ngeen na ngeen jaamu yàlla ak moo tax ca al isra wal mi'raj te amoon ci fan yi ba mu ñëwee baytul maqdis tabarkàlla jiite yonent yépp alayhimu salaatu wasalaam te kenn ku nekk defoon ci sa xutba ba wax ak moom waxtaan ak yonent ya ñoom ñëpp ñu dégg ko loolu lu jara bàyyi xel la teyit lu am solo la ci mbir moomu was al man arsal naa képp koo xam ne mas nañ koo yónni min qablika lu la jiitu min rusulina ci suñu yonent yi nga laaj ko ajaal naa mu ndax mas na ñoo def ñun yàlla min duuni rahmaani keneen ku yàlla alihatan ñu nekk ay yàlla yoo xam ne yu'baduna des leen di jaamu laaj leen loolu yàlla waxoon na ko ci alxuraan it fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al allazina yaqra'una alkitab min qablik kon loolu suñu borom tabaraka wa taala la wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye boo dajale woon mbooleem ñi nga xam ne ñoom la yàlla yónni tabaraka wa laaj leen ndax xam nañu benn yonant bu yàlla yoon nii te ba mu ko yónnee mu ne ko na ngeen jaamu yàlla ak nangam yonent yépp dañ lay xamal ne musuñu koo def ci mbirum yonentam gii ci sababu ne daal amul alal faqiir la ci sababu ne daal ñoom gis nañ ne amul daraja ne daal ñoom buñ sañoon bu yàlla wàcc alquran mu wàcc ko ci waajoo xam ne day bari alal te am daraja bi nga xamee ne yàlla nettali nañu loolu euh, mu ngi ñuy nettali xisab digginu firawna diggam ak musa ndax yàlla wan la ne la loolu àdduna tëdde noonu li ñuy wax jàpp ne àdduna daraja rek ak am am rek am na ku leen ci jiitu woon ñu koy wax firawna Muusa taxawee taxawaayu alayhi salaatu wasalaam bii aw mbokkam di wax lii na taxaw taxawaayu ay mbokkam moom alayhi salaatu wasalaam dégg àdduna daal ne moom li fi am mooy am am daraja tabarkàlla ak yu demee yooyu yàlla bi mu ñu waxee lee mu ñu won nag loo xam ne dis koo dund li ngeen di wax yéen théorie ak pratique bu ñu dugalee ci classe bi ñu def euh, théorie ba noppi ñu génn ci mbedd mi nag ngir def pratique bi yàlla wax nañ ñu théorie léegi nag na indi pratique bi yàlla nee na wa laqad na mas nañoo yebal Muusa yonent ba ñuy wax njàmme waaw moom la olof yi tudde njàmme lu ñu ko yónni woon bi aayaati naa ci suñu aay yi kéemtaan yàlla ko joxoon won ko luy tegtale ne yàlla kenn la moo yónni yonent yi ku dee da nga dekki fu ko yónni woon ila firawna wa malaihi ca firawna ak mbooloo ma sañ a waxal réew ma moom la ñuy tuddee jamono yi tey assemblée firawna wa malaihi ca la ko yàlla yónni mbooloom maanaam firawna ci boppam ak ña sañ a waxal firawna moo tax tabaarkàlla lu jar a bàyyi xel la ñu yónni ko ca kilifa nga jiite nit ñëpp ak mbooloo ma sañ a moom ne ko demal tabarkalla fa qaala Moussa dem ne leen inni rasulu rabbil alamin man ndawul yàlla laa mi nga xam ni mooy borom bindeef yi inni rasulu rabbil alamin suratu zuxruf ay ñeent fukk ak juróom benn falamma jaahum bam leen indi indilee bi ayatina ci kéemtaan yépp isaahum ñoom yadxakuuna minha ñuy ree ca kéemtaan ya bu dee mag nag nga ne muy reetaan aw gone moom mooy ree waaye mag bu reexee ñaare yu mel nii réexut dafa reetaan reetaan nag mooy suxriya maanaam saboote da ciy dem ak yu demee ni ki yooyu waaw léeg-léeg tabarkàlla nit ñi di ñàkk xàmmee yooyu ree ak reetaan gone moom day ree rek mag nag moom bu defee yooyu ñaari day reetaan reetaan nag mooy ñaawal laag euh, tabarkàlla di la di la yëjj ci la ngay def daxikoo minha li yohimoo atbaahum ann tilka al ayat sixar waaw loolu mooy reetaan bokkut ak ree nag ñi déggut olof na ñoom dañuy wax rek reetaan waaw diw dafa mën a reetaan fekk na ree gone moo koy def reetaan mag moo koy def léeg-léeg nag mag dana ree maanaam bu gisee lu saf xorom bu ca reexee daa ree waaye bu gisee loo xam ne dafa manqué ci nit su reexee daa reetaan ngir ñaawal ko yooyu nag bokkuñu tabarkàlla xam naa Njaay Jóob mii toppatoo wàllu li wax di tekki dina ci di bàyyi xel xëy na wa ma nurihim wanuñu leen min ayatin ci benn màndarga illaa lu dut hiya bi ñu leen mujj wan akbaru gën a rëy min uxtihaa ca ba ko jiitu yàlla nee na ñi àndoon ak na ak Firawna ci boppam Muusa kéemtaan bu ne wan na leen ko wan na leen kéemtaan bu ñu tëddee tuufaan te mooy dëkk ba taw asamaan si di taw suuf si di bala ndox fépp nekkum ndox wan na leen ay njéeréer muy soccet yoo xam ne dañoo baree baree bari ba kenn mu leen a dékku muy soccet yi di am bis na ko tey rek tabarkàlla yàlla nañ teggi fii yëpp ba nawet bi jeex ak jàmm naka noonu woon leen ay ay teeñ dafa am jamono joj firaw na dafa teeñ ñi ànd na moom ñëpp réew ma teeñ ministère yi ak député yi ak gouverneur yi ñëpp teeñ ndax yàlla di leen fàttali ne moom mooy yàlla lu tax yàlla di indi teeñ di ko mbugale firaw na néew doole gi teeñ néew doole ak lim yàq ci wàllu alal ca jamono jooja waras na cee dégg na yàllaay yàlla mbokk yi xool leen yoo ñaata fajukaayi yoo moo am ci dëkk bi yooyu lu ci nekk da ngay wax ni bii moo ay ci ñoom te ba bisub tey bii yoo yaa ngi Dakar koñ boo dem yoo a nga fa waxuma la dakaar waaye boo dugg ci région yi léegi la nga dem boo xale doo nelaw ndax ay yoo léegi loolu ci kéemtaani yàlla yi wane yàlla kenn la ci la bokk te ku ñu ne woon bu ñu la dugalee ci sa biir bàmmeel da ci dugg ak ñeenti yoo jar na jàmm yàlla ba toskare ndax doo fa mën a dugal yi gaa yi defar ba nga mën koo dugalal foofa te doo am kàttanu pomp ko ndax say mbokk dañ la yeew yooyu la yàlla duñ indil Firawna na ku mag la yàlla di ko indil ay teeñ mu teeñ lool ti munu ci dara yàlla indil na ko ay mbott defe naa xam ngeen mbott mooy kooku nga xam ne ci jaami yàlla yu néew doole yi ci la bokk te ñàkk pexe fu ko mbëttali fekk rek lekk ko tabarkalla mu ñàkk pexe lool te moom mbott su ngaxee lu mat e, genn wàllu minit faatu ndax bu ngaxee du nokki maanaam buy yuuxu noonu du nokki moo tax mu koy doggantal di ñëpp ndax muy nokki ku néew doole kooku yàlla yónni ne ko ci firawna mu lakkal ko lool wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min uxtiha moo tax yàlla koo ko xam rek ragal ko yàlla mu ne yii yëpp yoon naa ko ci ñoom mu ne wa axasnaahum ñu jàpp leen bil azabi ca mbugal ga la laallahum xay na yarjicuuna ñu delloo si seen xel dellu si dellu si fi yàlla tabaraka wa di santaane nii la def ak ñoom ndax yàlla eh, soxari nit ñi ak indi yu taxul yooyu déedéet dafa la bëgg fàttali boppam rek ba nga dellu si loolu rek la yàlla bëggal nit ñi te comme fàttali boppam ba nga dellu si bi ngay dellu si la lay daal di baal say bàkkaar jéggal la ko ngeen daal di jiboo yéen ñaar lii rek la yàlla def léeg-léeg nga def ko sa doom pini ko ci roq mu toog fa du da ko bañ déedéet waaye da ngay bëgg rek ngeen jiboo yéen ñaar ba doo ko ñàkk du la ñàkk ndax yàlla jaam yi la am jaam yi yàlla la ñu am juboo rek moo baax seen diggante waaye bu jaam yi meree yàlla du ko wàññi dara te bu yàlla meree jaam yi du baax ci ñoom suratu zuxruf ay ñin fukk ak juróom-ñett laallahum yarjiuna tabarkalla xanaa fàttali mag ñi bu ñu masaana wax laallahum ci seen jàng yu am solo yooyu ñoom dañ daan wax ne summa nga ne xaa ñu ne ñàkkul sàdda summa ñàkkul sàdda miim gi foo ko bindee rek sàdda ko summa summa ñàkkul sàdda ñu ne mag ñàkkul ba jaaw gone ñàkkul caay-caay summa ñàkkul sadd laalakum njool mii nag soo weesoo mag ma sàddal ma laam nga tabarkalla ak yeneen yu ñu daan wax ci alquran ba soo ko masaana tàmbali bàqara ba naa si baat bu ñu la bind nga bind ko waqaalu waqaalu waa firawna daat ne yaa ayuha saahiru ee yow jabar bi musaa la ñuy wax jabar bi maanaam ñoom jàpp nañ li Moussa def ay xarfa foofu la ak ay njabar ñu ne ko yaa ayyuha saaxiru ee eh yow jabar bi ud'u lana rabbaka ñaanal ñu sa boroom dégg nga rabbaka ñoom jël nañ damir ji jox ko Moussa waxuñ ko sax ud'u lana rabbana waaye ñoom ñu ne ko rabbaka ñaanal ñu sa boroom bi bima ahida indaka ci li ngeen siq innana ñun la muhtaduuna danañu jub suñu suñu dindalee li ñu bëgg mu dindal ñu ko suñu tàggalee ak teeñ yii tàggale ñoo njéréer yii tàggale ñoo ak tuufaan mii la muhtaduuna danañu jub te yooyu nag par benn lañ ko doon def lu ñëw lu ne ñu ne buñ tàggook moom jub Muusaa ñaan ñu tàggook moom nekkaat ci ndëng ga lenn lu nekk falamma kashafna anhum al azab saa bu ñu masaana muri ci ñoom mbugal ga rek isaahum yankuthuun ñu daal di dellu ginnaaw ñu daal di xàcc ñu daal di xàcc dellu ginnaaw ca lañu waxoon ndax dañuy wax ne bu bu bu nangam dañee ñu jub loola dañ ba noppi ñu bañ a jub loola mooy isaahum yankuthuun fa man nakasa fa innama yankuthu ala nafsi suratu zuxruf aaya juróom fukk firaw noonu nag daal di jël kàddu gi wax naa leen ci wàllu communication la ñuy jàng tey ca Canada di ko jàng ci meneen réew ci wàllu technique de communication li ci firaaw na am ku dul moom amoo ko ci discours bi muy bëgg a wax soo gisee ni muy daggatee baat yi nga xam ne ko mën a communiquer la maanaam taqalewut li muy wax lépp daf ko doon dagg par baat moom firaaw na ndax bëgg ñi muy waxal dégg ko nga déglu wa naada fi xaw mi wa naadaa mu woote firawnu firawna fii qawmihi ca nitam ña ñépp ñëw rajaleel ko kilifa yeeg kàngam yeeg tabarkàlla député yaag ñépp ñu rajale leen xaala mu ne yaa qawmi alaysa lii mulku misra gis nga wax ju gàtta nga noonu alaysa lii mulku misra ndax moomuma nguurug misra ñëpp tàccu waaw ñëpp tàccu bu doon tey nga ne ñu daal di tëgg ndënd jaag daal di soufflé rek mu dagg fa baat bi alaysa lii mulku misra wax ju gàtt te am balaaga alaysa lii mulku misra ñëpp daal di tàccu ndax moomuma nguurug esipt misra bii tey ñëpp ne ah kay mu ne wa haazihil anhaaru tajri min taxti daal di dagg mu ne dex yi ngeen di gis yépp di daw ci sama ron ñu naa kay mooy leen afala tubsiruun ndax amu leen bët yooyu gis ñu naa kay mu ne am ana xayrun min haza huwa mahin ndax maa gën kii nga xam ne moom ku doy di la wala bal ana xayrun min haza daif am ñu tekkee ko bal li fi nekk daal xam ngeen ne ana man firaw na xayrun min haza maa gën waa ji allasi huwa mahiin moom ko doyadi la maanaam ñu ngi koy e, sànni ay kàddu yoo xam ne dina ko yàqal su doon tabarkalla gaa ñiy wax ci wàllu politique ñoom Birima Fall ñoom lu dañuy wax ne day koy diaboliser maanaam wax ay baat yoo xam ne daf koy jëmale ci Moussa ba nit ñëpp daal di foñ Moussa déggal rek Firawna loolu lu yàgg la woon ci wàllu politique am ana xayrun min haza allazi huwa mahin ñëpp daal di tàccu mu ne wala yakaadu yu biin munut leeral sax li muy wax munut sax leeral li muy wax waaw tabarkalla suuratu Zuxruf aaya juróom fukk ak ñaar firawna ne leen falawlaa ulqiya alayhi aswiratun min zahab lu teewoon ñu sànni ci moom ay takkaayi or lu ko tee takk or ñëpp daal ne dafa yorut dafa yorut dafa yorut coow li na kurr aw jaahu aw jaa maahu almalaikatu muqtarinin walla malaaka yi ñëw ànd ak moom lënkaloog moom di ko jàppale lii la na wax ci discours bu gàtt bi fastaxafa qawmahu mu ragalloo nitam ña fa ataacuuhu ñu topp ko fàtte Muusa fàtte yàlla tabaraka wa taala innahum ñoom ña topp na ñépp kaanu nekk nañ qawman faasiqiina nit ñoo xam ne dañoo génn topp dañoo jubadi yàlla tabarakàlla discours bii bu gàtt bii te am solo nii ko firaw na tërale tabarkalla nii mu ko defe daal di sànni baat yi ca Moussa fas ko yéenee jaxase mhm. tabarkalla mu ne wa haazil te boo demee misra booba nahrul malik ma nga fa woon nahru tooloon ma nga fa woon dimyaat ma nga fa woon tiins ma nga fa woon yépp doon jógee minen niili tabarkalla Euh, yëpp firaw na ne wa haasihi ndax euh, misra dafa bari yu mel noonu tabarkalla dëkk bu naat la dëkk bu bari ay dex la di bal di jàpp ca dexu niil ga di ca ànd suratu Zuxruf aaya juróom fukk ak ñeent yàlla ne na fa lamma aasafuuna bañ ñu merlooxee intaqam naa minhum fayu nan ca ñoom mbugal nañ leen waaw yàlla dana mer waaw moom moo ko wax fii nu muy mere loolu nag lañ xamut ndax ñoog moom ñoo bokk mer déedéet soo nattee merum yàlla ci suñu mer nag danga koy indil ak manqué te yàlla manqué wut bul jàppee merum yàlla ak sunu mer waaye ginnaaw nee na bam ñu merlooxee rek jàppal ne yàlla day mer nan lay mere ah bokkuñu mer ñoog yàlla ndax bokkuñoog moom lenn huwa waxidun fi yi wa waxidun fi afaalihi wa waxidun fi asmaihi wa sifaatihi jalla jalaaluhu wa azza kamaalu fa lamma asafuuna moom daal nan gëm ne day mer nu muy mere jalla jalaaluhu moo ko xam wa azza kamaaluhu ma ngay mer nam na yàlla ca jëmmam jëmmam subhaanahu wa taala fa aqranaahum ñu labal leen ajmaina ñoom ñëpp ñëpp la yàlla labal subhaanahu wa taala ca dex ga ixtarra firawna bil azamati wa sultaan wal anhaaru allati tajri min taxtihi fa ahlakahu llahu bi jinsi ma takabbara bihi huwa wa qawmuhu wa zalika bil xaraqi bi maa il bahr mu fassiroon yi ñu ne bi firaaw nay tàmbali discours bi lim njëkk a wax mooy wa haazihil anhaaru tajri min tahti dex yaa ngi nii daw di ma wër ci sama suuf yàlla ne ko dex yooyu nag moo lay alak te itam tabarkàlla ndox ko alak moom firaaw na lu am solo dafa waru ci darajaam waru ci nam tolloon waaye ba ko yàlla yi mbugal mbugale ko ndox ak ndox ni mu lewete ndekete nii la wexe la ku soobu dex na xam ndox dof bi yeewul te wattum ndox la wet na te wex ci biiram ko sàggan sànku faw te lab te duuduy te doo set doo setal doo xam boroomam tabarkalla bàyyi Musaa Ka moo doon wax wax jure jooju kon firaw na bi mu dee wane ni mu toll yàlla ko mbugale ndox fa jaalnaahum ñu def leen ñoom firaaw naag ñi ànd nag moom ñu nekk ay salaf li kuffaari xuraysh wa mathalan ñu nekk ay misaal lil axirina ñay topp ca ñoom moo tax baatu salaf fu ñu ko waxee buñ ca tegut as saalix rek mu mën a nekk salafu salafu taalix waaw moo tax mu ne fa jacalnaahum salafan salafan li kuffaari quraysh yataqaddamuunahum ila annaar wa izzatan wa ibra li man yati min baadihim wa masalan lil axirin suñ ca tegee nag asalafu saalix muy alladina jaau baada taabiin aw fi asri taabiin baada sahaaba ridwanullahi alayhim ajmain muy ñi toppoon ci taabiuna yi asru sahaaba jeex yal na yàlla yërëm leen tabarkalla bàyyi fi ay njàngale yu am solo suratu zuxruf aaya juróom benn fukk juróom fukk ak juróom benn yàlla nee na walamma duriba ba nga xamee ne sadd nañu ibnu maryama kay doomi maryama ja di isa ñu sadd ko mathalan mu nekk am misaal isa ba ñu ko defee rek ca saasa xawmu ko sa nit ñi yow muhammad alayhi salatu yasudduuna wala yasidduuna ñuy dummóoyu mujaahid ab sëriñ la mu ne quraysh ba nga xamee ne wax na dañ doon wax ne muhammad alayhi salaam dafa bëgg ñu koy jaamu ni nasaraan yi di jaamoo isa bnu maryam yàlla tabaaraka wa taala wàcc ay ji nga xam ne ci la ñu nekk loolu la sëriñ bi ñu wax mujaahid wax yasudduun bi ñu indee misaal mel noonu rek te tabarkalla mbokkam yépp daal di du moyu waaw daal di lool walbatiku gën a song yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxaalu ñu daal di ne ah alihatuna mu ndax suñu yàlla yi xayrun moo gën am huwa wala moom ahaliatuna mu ndax suñu yàlla yi xayrun moo gën am huwa wala moom ku ci gën yàlla mu ne maa darabuhu laka illaa jadala sadduluñ le misaal moomu lu dul bëgg ubbi buntu werante ahaaliyatuna xayrun am isa fa in kaana isa fa in kaana isa xayrun faltakun aliyatuna maahu yàlla mu ne maa darabuhu laka illaa jadalan loolu daal werantee tax ñu bëgg la koo wax tabarkalla euh, ñu ñeme woon ay werante lañ ñoom arab yi ndax seen làmmiñ dafa ñëwoon bal hum qawmun qasimun ñoom ay nit lañ xam ne ñu mën a xuloo lañu waaw ma daraboo laka haza al mithal illa ala wajhi al jadal wa huwa an yaqsuda al an yaghliba man yunaziruhu sawaun galabahu bi xaqin aw bi baatil waaw ci jublu làmmiñu naar muy arab yi lépp loo mën di wax bu dee da ngeen a attase ci xuloo moom ñu man la leneen lu dul xuloo nag mënees na leen caa man wala li ëpp ci àdduna si tudd xuloo dees leen caa man moo tax bi yàlla wàcce alxuraan mu wàcce ko ci loo xam ne da leen di jommal ci wàllu wax la moo tax bi mu ñëwee jommal seen udabaa ya shuara yaag ña doon wax ñépp bi alxuraan ñëwee daal leen di jommal kenn ci ñoom mas naa wax benn waay rek xas ko mu daal di daanoo ci fosam daal di génn àdduna dee rek xas ko rek waaw laa ba'sa bil qawmi fii kibrin wa fii izamin jismul bixaali wa ahlaamul asaafiri loolu la ko waxoon rek waa ji daanu ca fas daal di sedd guy mu ne lisaani wa sayfi saarimaani kilaahuma wa yabluqu maa laa yabluqu sayfa miswadi tabarkalla boo dee jàng al adab loolu lañ la ca jàngal ñoomeen euh, ustaas si mële ca tabarkàlla canal 4 ñoom ñooy jàngale loolu ñoom Moustapha Sy nee na in huwa moom nekkut moom isa illaa abdun lu dul ab jaam comme jaam yépp an am naa waaye nag xéewal nañ ko wa jaalnaahu ñu def ko masalan li bani israil mu nekk misaal nekk waaraate ci banu israil walaw nashaau bu ñu neexoon la na minkum daañ sàkk ci yéen malaaikatan ay malaaka fil ardi ñu nekk ci suuf si yaxlufuuna di wuutente ñii di wuutu ñii ñii di leen wuutu fu malaaka jóge rek mën ñëw fu kenn jóge keneen ñëw wa innahu alquran jii nag ak ñëwam wa innahu isa it ak dikkam la ilmun lissaa mandarga la muy wane ne bis penc mi ngi bëgg a jot falaa tamturunna biha bu leen ko werante wattabiuuni topp leen ma man muhammad alayhi salaatu wasalaam haza siratum mustaqim lii day yoon wu jub la teg leen seen baaram ci aaya juróom benn fukk ak juróom benn ci suratu soxruf ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonentam bi sallallahu alayhi wa dellusi nañu ci suratu zuxruf tey di suñu ñeenteelu daje incha allah ñu ngi taxawoon ci aayab juróom benn fukk ak benn wa innahu la ilmun lissaa fala tamtarunna biha wattabiuuni hada siraatun mustaqim suñu boroom tabaraka wa di wax mu ne wa innahu dellu sik isa la ilmun li saaca day xamle ne bis ci jot na wa fii riwaaya am na ñuy jàng wa innahu la alamun li saaca day wane ne bis ci jot na fala tamtarunna biha bu leen ko werante wattabiuuni topp leen ma haza topp ma siraatum mustaqim mooy yoon wu jub foofu moo suñu borom tabaraka wa taala bi mu jàngalee loolu alayhi salaatu wasalaam mi firi alquran mu ne yuushaku an yanzila fiikum isa bnu maryam xakaman muqsita hadis boobu rawaahu al mu bokk ci téere xadis wala bokk mu doon téere xadis bi ñu nangu ne moo gën a wér ci téere foofu nag ci wàllu ilmun li saa boo amoon téere bu ñuy wax at tasriixu bi ma tawaatara fi nuzulil masix te a Cheikh Abdul Fattah bind ko wax na ca wax ju yaatu na lool indi ca mboolem ahadis mutawaatir yi nga xam ne ñëw na ci di wane ne Isa alayhi salaam dina wàccaat ci jamono bokk na ca yonent bi alayhi salaatu salaam ci addis boo xam ne ñu ngi ko jële ci Abu Hurayra mu ne wallazi nafsi bi yadihi la yushakanna an yanzila fiikum ibnu maryam axrajahu malik wa abu daawud ba dema ci muslim it fekk fa xadis laa tazaalu taifatun min ummati yuqaatiluuna ala alxaqi zahirin ila yowmi alqiyaamati fa yanzilu isa ay nas la yu dina wàccaat ci jamono wax addis yooyu mutawaatira la yu wér la foofu lañu taxawoon ci bind war a ci aayab juróom benn fukk ak ñaar wala yasuddannakum shaytaan innahu lakum aduwwun mubin yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp yàlla ne na wala yasuddannakum bu mu leen gàllankoor bu mu leen wor di leen jax-jaxal na ngeen fexe ba bu seytaane gàllankoor leen ba du ngeen topp dëgg na ngeen fexe ba bu seytaane dox seen digganteeg dëgg fu ngeen gise dëgg rekk na ngeen jóg fas yéene caa topp te xam ne laytee topp dëgg mooy seytaane innahu seytaane nag aduwum mubinun lakum noon la bu bir ngir yéen ñi nga xam ne dangeen maa nangul te nar ma topp si noonu la bu biir ndax suñu bàyyi ja ñuy wax aadam moo ko génne minal na moom summi ay yéreem moo tax soo ko xasee xam rekk nopp lu dootoo am beneen noon bu dul moom innahu lakum adu biin boo ko xasee xam rek noppalu dootoo wut ci àdduna si benn noon dootoo wut noon boo naan ñoo bokk fu ñuy liggéey sama noon la ñoo bokk lu ñuy liggéey sama noon la ñoo bokk wujj samam noon la dootoo amatib noon benn noon rek ngay am mooy acheytaanu innahu lakum aduwwun mubin suratu zuxruf aaya juróom benn fukk ak ñaar walamma jaa isa kera ba nga xamee ne isa ibnu maryam ñëw na bil bayyinaati te indi yu leer ya muy mucjisaat yaag sharia xam ne taxtalifone fii yéen a ngi ciy wuute la ca des ma bàyyi ko ndaw lay mujj ñëw bu ñëwee leeral lépp sallallahu alayhi wa sallam wa jitukum li ubayina lakum maxtalaftum fiihi min umuuri diin ibnu jazi mu ne li tax mu ne baad allazi taxtalifuuna fiihi doonal kul li anna al anbiyaa innama yubayinuuna umuura diin laa umuura dunia ba dama ci téere bu ñuy wax tashiil li ulumi tanzil jukkib ñeenteel xatub fanweer ak ñaar ca la ko ibnu jazi wax mu ne boo gisee Isaa ne lenn ci li ngeen di wuute te waxut lépp lu ngeen wuute mu ne ndaxte yonent yi alayhimu salaatu wasalaam la ñu daan leeral moo di rekk mbirum diine waaye léeg-léeg daanuñu dugg ci mbiri àdduna waaye duñ ko leerale nag ni nga xam ne noonu la ñuy leerale mbiri diine ndax mbiri di mbiri àdduna léeg-léeg yonent yi yem ceeg nit ñi léeg-léeg boroom xam-xam nga gis ko bu am diine tabarkal la nekk xam-xam xam-xamu diine waaye nit ñi raw ko ci mbirum àdduna loolu diine nangu na ko moo tax atabari moom it mu ne yaani min al umuuri addiiniya la dunyawiya ñooñu ñëpp ay wax la yoo xam ne tabarkal la yu am solo la fattaqullaha ragal leen yàlla wa atiicuun te ngeen topp ma mu nekkoon su boobaa ma teg leen ci yoon wu jub wa leeralal lenn ci li nga xam ne yéen ciy wuute mu ne leen inna allaha yàlla man isa ibnu maryam maa ngi leen di yëgal ne huwa rabbi mooy sama boroom wa rabbukum yéen mooy seen boroom fa faabuduuhu wéetal leen ko fa faabuduuhu jaamu leen ko moom dong huwa rabbul maabudu la rabba siwaaw kon nag faabuduuhu jaamu leen ko ibnu kathir mu ne ana wa antum abidun la fuqaraahu ilayhi mustarikuuna fi ibaadatihi waxd ñu ñépp maak yéen ñoo bokk nekk ay jaami yàlla ñàkk ci moom talal ko suñuy loxo ànd ci jaamu yàlla gi di ko jaamu moom dong wax jooju boo demee ca muxtasar ibnu kasir noonu la ko ci waxe ibnu jarir it noonu la ko waxee ne wax la joo xam ne xasanun jayid haasa yoon wi nag isaa di jàngale nee na yoon la woo xam ne it mustaqim wu jubla soo seetloo bi alayhi salaatu wasalaam jàngale léegi wa innahu saa ña nga tëj aaya ja haasa bi isaa di wax discours am bu gàtt bi it ñu ngi ko tëjee ci haasa siraatum mustaqim boo dee jàng alfaatiha moom dangay ngay wax ihdina assiraata almustaqim benn bu ci nekk nga def ca taara taara mooy alif ak laam wala liif ak laam su xasee am liif ak laam nag lu dul loola du njub assiraat almustaqim suñ ko xasee wax lu dul loolu nekkutut nekkutut ak njub buñ ne haza siraatum mustaqim li muy tekki mooy lii ak njub la waaye leneen mën naa nekkum njub moo tax su fi amoon haza assiraatu almustaqim li fi yàlla jàngale mooy kon benn yonent dootul ñëw ginnaawam ba mu ñëwee ci alfaatiha daal di fay def nag alif ak laam assiraat almustaqim moo di kon foofu mbir ma yem tabarkàlla sallallahu alayhi wa sallam suratu aaya juróom benn fukk ak ñeent yàlla subhaanahu wa taala nee na faxtalafa mu daa di wuute al ahzaabu kuréel ya daa di wuute ci mbirum isa wa saaru chiaan wa ahzaaba saaru chiaan fiihi minhum man yuqirru bi annahu wa abdullah wa rasuluhu wa minhum man yaddaci annahu waladullah wa minhum man yaqulu innahu allah taala allahu an qawlihim uluwan kabira muxtasar tafsir ibnu kathir jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom ñeent fukk ak juróom nee na faxtala fa daal di wuute al ahzaabu kuréel ya min baynihim ci seen diggante ñeene moom mooy jaamu bi yàlla te ñeene moom doom la ci yàlla ñeene moom ci boppam mooy yàlla loolu muxtasar ibnu kasir ca lañ ko firee tabarkalla faxtalafa al ahzaabu min baynihim fa waylun lillazina zalamu yàlla mu ne toskare ñel nañu nga xam ne tooñ nañu tooñ borom bi tabaraka wa lu ñu leen di ñaal min azabin wala min azabi yawmin ci mbugal bés boo xam ne aliim bés bu metti la tabaaraka wa taala day bañ ku ko jiiñ lu nekkul ci moom ku ko jiiñ lu mu dul def ku ko jiiñ walla nga wax ko wax boo xam ne bi yellul ci moom subhaanahu wa taala taala allahu uluwan kabira lam yalid walam yulad suratu zuxruf aaya juróom benn fukk ak juróom ndax danañu xaar ñi nga xam ne ñoo di almushrikuun di weddi ndax dinañu xaar illa saata lu dul bis pénc xaaruñu illa saata lu dul bis pénc hal yansuruuna xaaruñu illa saata lu dul bis pénc an taatiyahum mu dikkal leen bés penc mooy bés boo xam ne bii ca penc ma la ñépp di daje asaa mooy bés penc soo demaan cib dëkk bu ñu ko daan dund bu ñu fa daan dëkk ni nit ñi daan def mooy dañuy def benn cercle ci digg ba kenn du ca dëkk ca la teen bay nekk ca la garab gu mag ga di nekk ca la jàkka ji di nekk ca la marché ba di nekk ñépp bokk ko loolu lañ daan tuddee am pénc nga xam ne ñépp fa la ñoo daje alaaxira noonu la am pénc la moo xam ne ñépp a fay daje néeg yi mooy xabru yi ci la nit ña di jóge ñun ñépp ñu daje ci pénc ma tabarkalla jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu àtte ñu benn par benn ñi tooñoo nag ñiñ tooñoo nag la ñu jëloon yëfi jaambur ak ña jëloon te seen borom gis leen te mënuñ caa jot ak ñëpp ñu dajale leen mu di asaa xaaruñu illa saa lu dul bés pénc an taatiyahum mu dikkal leen baxtatan cig mbetteel wahum ñoom nag bu leen di dikkal laa yashcuruuna duñ ko yëg xaafiluuna anha mustaxiluuna bi umuuri dunya wa xiina isin yandamuuna xaysu laa yanfacu nadam wa lay laa yash'uruun bés penc nañu muy dëkkal te duñ ko yëg isil qiyaamatu qiyaamataani suxraa mamaatu kulli ma insaani waaw bari na ci ñoon koo xam ne bu ko bis pencam di dikkal du ko yëg maanaam da koy bett tabarkalla fekk projet yi yu bees yeek yi ngay door a tàmbaleeg yooyu yëpp ñu jékki-jékki rek ne génn na ñu ne kañ la ko def ñu ne démb wala ñu ne tey ci suba tabarkàlla woohum laa yashurun am na ñoo xam ne la tax laa yashurun seenu càggante am na ñoo xam ne la tax woohum laa yashurun mooy soxla gu ñuy soxla mbirum àdduna su ko defee nag bu ne këlëb rek rëccu daal di am wala yanfau nadam rëccu nag du jariñ dara su xasee weesu alaaxira su dikkee ñun ñépp ñu jóge ci xabru yi tase ca pénc ma tabarkalla ñuy atte su keroogee al axillaahu xarit ya al axillaahu fans ya al asdiqaau wal ahbaabu xarit yépp yowma isin bu keroogee baaduhum lenn ci ñoom aduwun li baad dañuy noonoo lenn ci ñoom dañuy noonoog lenn maanaam bés ba ñëw rek barkal lañu ñu soppante woon daa di bañante illal muttaqiin lu dul ña ragaloon yàlla maanaam lu dul ña amoon jëm al asdiqa wal ahbaab yowma alqiyaamati yasbaxuuna acdaa illa man kaanat sadaqatuhu wa mahabatuhu lillah ibnu kathir nee na kullu wa sadaqa li fa innaha tanqalibu yowma alqiyamati adaaw bépp xarito bépp sappante bépp fans boo xam ne nii suñu borom tabaraka wa taala taxutoon su àllaaxira dañuy nekk ay noon kenn ku ne naan sa morom li dal tey yaa ko yóbbe al axillaahu yowma isim baaduhum li baadin adu illa al ba tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu jàngale mu ne al mar'u maa man ahabba yowmal kuy dekki ku ne yaa ngay dekki ànd ak ka nga bëggoon ka nga soppoon tabarkalla fans yi ànd ak seeni fans ñoom ñépp fu fu fu kañ faawul jëm ñu jëm fa noonu la ko yonent bi jàngalee sallallahu alayhi wa ibnu abbas mu ne saarat kullu xilla adaawa yowma alqiyaamati illa almuttaqin tashrifan wa tatbiban li qulubihim fa fa yaquulu yaa ibaada yaa ibaada almuminina alladina taxaqaqtum fi lubudiya li rabbil alamina laa xawfun aleykum mu di aaya jii di bëgg ñëw al axillaahu yowma isim baaduhum li baadin adu illa almuttaqin xaritoo yépp xarit ga tas ñu nekk ay noon di joxañante di jàppante ay téere baat di poñente tabarkàlla di xëppante suuf illal muttaqin lu dul ña ragaloon yàlla ñooñu ñoom ànd moo tax bu ñaar àndee ci ak ragal yàlla akuk soppante ba kenn ka génn àdduna su demee te ne ci xéewal la muy ñaan mooy yàlla bu yàlla dëngal xaritam bi ba mu fekk ko ci xéewlam yi bu dee ñaar ñu àndoon ci ndëngate nag ba kenn ka génn àdduna ba na ciy mbugal moom it day wax ne yàlla bu yàlla jubal sama waaja ba mu fekk ma ci lii ma nekk yàlla mu ne yaa ibaadi ee eh yéen sama jaam yi yéen day laa xawfun aleykum yéen ñi nekkoon muttaquuna laa na aleykum du ngeen tiit al ma tey dara wala antum taxzanuuna du ngeen jàq dara suratu zuxruf ay juróom benn fukk ak juróom-ñett waaw léegi nag ana ñan la yàllay wax yaa ibaadi ana ñan la yàllay y wax yaa ibaadi ee yéen sama jaam yi mën a ñi rek la alladina amanu bi ayatina wa kaanu muslimin dañoo boole al ak al ñaari sart yi mooy tax yàlla boole la ca yaa ibaadi alladina amanu bi ayatina wa kaanu muslimin loolu mooy ñaari sart yi saddaqu bil qur'aani wastaslamu li xukmi llahi wa amrihi wanqaadu li taatihi alladina amanu mooy ñi gëm bi ayatina wa kaanu ñaaral ba ñu nekk muslimiina ommatu nag ca la yàllay santaane ak di bàyyi ay teram ñaar yii mooy tax bu yàlla ne yaa ibaadi ak su ne fadxuli fii ibaadi nga mën a jóg faxas sa mbubb bu dugg ca seen biir lan allazina amanu bi ayatina ñaaral ba wakkaanu muslimin tabarkalla la ca yàlla yi teg mooy udduxulul jannata udduxulu dugg leen aljannata aljanna antumi yéen yéen ñépp ñu yoroon ñaari melo yi amanu wakkaanu muslimin yéen ñépp ànd leen udduxulul jannata moom ngeen dégg ca aaya ja yaa ayatuha nafsul mutmainna irjii ila rabbiki raadiyatan mardiya fadxuli fi ibaadi wadxuli jannati aaya jooju la si defeem seen rajo di fàttali su nit génnee àdduna ba ñi koy tàgge toog fii di jàng ñu tegal leen aaya jooju toor koo tàgge tàgge ko ba noppi tegalaat leen ko yaa ayatuha nafsul mutmainna di fàttali ñépp ne ne kenn ku nekk fexe ba balaa aw këyitama ñëw ci taabal ji mu nekk ci yaayatu ayatuha nafsul mutmainna yàlla na fi seen këyit yéex a ñëw yàlla na fi sama këyit mayit yéex a ñëw tabarkàlla udxulu aljannata dugg leen aljanna antum yéen wa azwaajukum ak seeni soxna dugg leen aljanna yéen ak seeni soxna tuxbaruuna ñu leen cay xéewal tuxbaruuna ñu leen cay xéewal ci biir aljanna ja ak di leen ca bégal waaw ah, udxulul jannata antum wa azwaajukum yéen ak seeni soxna soxna si sa jëkkër ji dugg na aljanna yàlla ne ko duggaali ko nga dem feneen fu yàlla ne jëkkër jaa nga jëm aljanna soxna saa nga jëm fële wala boog jabar jaa nga jëm fële kon fii muy wax antum wa azwaajukum baatu azwaajukum day tekki ak ñu mel ni yéen kon soxna si mel ni boroom këram ci ak topp ya des ca wàllu manqué manqué ak yooyu nag suñu borom tabaaraka taala mën na koo yëgal ca jëfi jëkkëram ñu dugg aljan waaye su fekkee nekkul ci benn góorgóorlu nag loolu nag su boobaa ku tegewul ci yoon neexutu yóbbaale. suuratu zuxruf aaya juróom-ñaar fukk suñu duggee aljanna yutaafu alayhim dañuy baagante ci ñoom taafa dañu ko daan tekkee wër ñuy wër ci ñoom eh, Ibrahima Sakho rahmatullahi alayhi mu ne nit mën naa yor ay kaas di la wër doo ca naan nee na nit mën naa yor ay kaas di la wër rek di la wër ba jant bi so mu yóbbu ko doo naan mu ne kon yutaafu alayhim mooy baagante ñëw yëtlab kaas dellu indiwaat beneen jël bi njëkkoon a yóbbuwaat indiwaat beneen noonu la dégg woon aaya ji moom rahmatullahi alayhi wa radiya anhu yutaafu alayhim dañuy baagante ci ñoom bi sihaafin ci ay palaat ay tabla ay kaas yu ndaw waaw mu ne waaw min zahabin kaas yoo xam ne or lay doon wa akwaab ak ay kopp mufassiruun yi nee nañ aaniyatu ahlil janna allati yaakuluuna fiiha ataam wal kuusu allati yashrabuuna fiiha sharaab kulluha min zahabin wa fidda jàng leen aaya ja wa yutaafu alayhim bi aaniyatin min fidda wa akwaabin kaanat qawaariira ay jàng noonu danañuy baagante ci seen diggante ci ay ndab yoo xam ne xaalis la ak ay kopp yoo xam ne ay verre la mu dëkk ci hadis yonent bi nee na laa talbasul xariir wala diibaaj wala tashrabu fi aaniyati zahab wal fidda wala taakulu fi sahaafiha fa innaha lahum fi dunya wa lakum fi l axira min riwaayati ash-shaykhayni yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yéen sama xeet bi bu ci kenn ci yéen góor ñi sol soie bu ci kenn ci yéen góor ñu sol diibaaj bu leen naan ci ndabu xaalis bu leen naan ci ndabul or bu leen lekk ci palaati xaalis bu leen lekkee kuddi xaalis bu leen lekkee kuddi or it mu ne ndax palaati xaalis yee kuddi or yeeg kuddi xaalis yi ñu nangulul yàlla ko moom ci àdduna ñi nangul yàlla war koo moom su àllaaxira allahu akbar min riwaayatu cheikhayn kon nag looloo tax euh, sol mbubb sooy daganul ci góor dagan na ci jigéen takk or daganul ci góor dagan na ci jigéen waaye aaya jee ñu jàngoon barki démb day eh, awaman yu nasha u fil xilyati la koo xam ne kii la muy màgg lépp mooy bëgg a takkaay ak takk rek tabarkalla te suñu borom tabaraka taala doon ko wax ci ay yi ñu romb loola day tabarkalla lu am solo la ci jigéen ñi tax na ba jënd jigéen ngi nii ju baax joo xam ne la <laughs> mu doon takk lépp tabarkalla da ko tekki yàlla na yàlla fay ko te defal ko tawfiix min zahabin wa akwaab wa fiiha am na ca aljanna maa tashtahiihi lépp loo xam ne dana ko bëgg al anfusu bakkan ya aljanna daa neex a neex ba nga xam ne dara du fa manki lépp lu sa bakkan bëgg rekk ma nga fa wa fiiha maa tashtahiihi al anfusu maa bii nag kenn mënu koo firi maanaam ba xam li mu doon mooy rek lépp loo xam ne ndax su ñu demee àllaaxira mën nañoo na ci biir mu neex lool nga gis ndaw kondaa yi seen xel dem ci ceebu jën yi fii yàlla mu ne day am wala ñu xemmem leneen yàlla mu ne day am wa fiiha ma tashtahil fus adduna léeg-léeg nga dem ci kër añ bi ñëw bëgg nga gaa waaye du sa palaat waaye nag ñàkk pexe tax na mën nga caa jëfandiku àllaaxira nag moom du noonu bépp ñam bépp xeeti ñam bu sa xel nekk fekk na am na ca aljanna ja àdduna si nag moom boo fi wooxoon fukki nit taajal leen fii añ dana ca am ñoo xam ne ñoom añ ba bu gisoon beneen duñ caañ soo ko weddee nga dem ci restaurant yi jaay añ dangay gis ku ñëw ne ndax maafe am na kii ñëw ne ndax ceeb am na kee ñëw ne ndax ceebu jën am na kee ñëw ne waaw ndax laax am na kenn ku ne ak la ngay laaj bu demee mën mal am nag euh, du du demee noonu te fii ci àdduna léeg-léeg nga dem ci restaurant laaj li nga bëgg a aña amu fa nga ne kon nag jox ma nangam dafay bari lool tabarkalla ñii aña ci restaurant yi lii may wax xam nañu ci lu wér a wér a wér tabarkalla nag yooyu amu fa moom loo commande rek am na fa fii fiiha nekk na ca aljanna maa lépp loo xam ne tashtahiihi dana ko bëgg a bànneexoo al anfusu bakkan yi mooy lu ñuy lekk wa taluz wa taluzzul ayunu lépp luy bànneexal bët bët war koo xool ci lu rafet am na ci biir aljanna lépp loo xam ni bu ko bët xoolee bég mu nga ci biir aljanna ja àdduna si it fi mu nekk léeg-léeg nga xool fi loo xam ne soo sañoon doo ko xool wala soo sañoon doo ko gis aljaan nag yàlla def na fa yoo xam ne lépp lu nit bëgg xool mu rafet ma nga fa te xam ngeen ne aar képp kuy nekk artist yàlla la ko gën a nekk bu ñu dee seet ci dàq defar wàllu aar ci ñun dañ lay defarloo àll wala géej gu taqaloog jant buy so asamaan si taqaloog moom wala mbedd muy dem te ne ci biir àll ci la ñuy xame nit ndax mën na aar wala déet te yooyu mi ngi koy roy ci àllub suñu borom bii tabaraka wa taala looloo tax yàlla jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu bu ne bu ngeen demee àllaaxira lu ngeen xalaat ci taar te muy bànneexal bët ma nga fa loolee lu wér la xoolal rek nil ñuy waxee rafetaayu yuusufu ba ba kenn ku nekk koo gis mu rafet nga mën a waat ni yuusufaa ko dàq ñu ne la yuusufa alayhi salaatu wasalaam a ko dàq xoolal bés bu ñu demoon xool ñu ne ñu ñu présenté ñu ne kii mooy nabiyullah yuusuf ñu walbatiku ñu présenté ñu ne kii mooy euh, tabarkalla euh, muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu jóg ci nag ñu nañu kenn mooy yàlla yooya bët dana fa xool gis fa loo xam ne taar baag rafetaay kenn du ko mës a gis wa te kat wa te kat antum fiiha yéen ci biir aljanna ja xaaliduuna ca ngeen di sax biir aljanna ja kenn du fa dugg ba mu yàgg nga génn kenn du fa dugg ba mu yàgg nga jeexal kenn du fa dugg ba mu yàgg nga walbatiku di dellusiwaat fii ci àdduna tabarkàlla yàlla subhaanahu wa taala mu ne wa fiiha am na ca aljanna maa tashtahiihi lépp loo xam ne dana ko bànneexoo al anfusu bakkan lépp lu bakkan di bànneexoo nag wa talazzul ayunu te bët di ko bànneexoo wa antum fiha xaalidun ca ngeen di sax aljanna kenn du màggat aljanna kenn du feebar aljanna kenn du jaaxle aljanna génn góor du joxe dépense aljanna kenn du fay courant aljanna kenn du fay ndox aljanna deesul fay téléphone aljanna deesul rang ciy kaar al aljanna deesu jël taxi aljanna deesul ñaq aljanna kenn du toqi aljanna deesu ca al aljanna kenn du ñaq al aljanna kenn du ñandeeku aljanna jigéen ñi du ñu fóot aljanna kenn du paase aljanna kenn du root ku nelaw ba sonn sax sablaal moo lay wëlbati wa tilka aljannatu aljanna jooji nga xam ne nag allati moo ji nga xam ne uristu moo xaa féetale lañ leen ko bu ñu demee yowmal xiyaam ba dugg fa yàlla nañ fa dugg ñun ñëpp wa tilkal jannatu yàlla mu ne lii nag mooy aljanna allati ji nga xam ne uristumuha féetale nañ leen ko lu tax mu ne bi ma kuntum taamalu na ca la ngeen doon liggéey la ngeen doon góorgóorlu ndekete ngir nga dugg fa fokk mu am al amalu bi ma kuntum taamaluuna aljanna kenn munte liggéey ba am bie ba matal kenn mënu ko alayhi salaam nee na amul kenn ci ñun ku mën a liggéey ba am bie na yor ko dem dugg ñu ne ko ah ba yow sax mu leen ba man sax illaa an yataxammadani llaahu bi rahmatihi lu dul yàlla dugal ma ci yërmandeem kon nag luy xew mooy jëfa jëfa jëf ba suñu borom tabaaraka taala gërëm la rek mottali la nga dugg soo amoon sa doom di ko baleloo benn saal wala yooyu wala ëttu kër gi mu tàmbalee bale boo ñëw bu sonnee rek mën nga ne ko bàyyil mën nga koo neexal waaye boo ne ko acca baleel ma biir néeg bi ak li muy tuuti tuuti mu téye bale ga taxaw boo ñëwee tabarkàlla ba moytuwul da nga ko mosal ci bale gi ñaari bale kon nag loolu mooy aljanna fokk nga liggéey li ngay liggéey nag suñ la mottalee nga mën a dugg suratu zuxruf aaya juróom-ñaar fukk ak ñaar bima kuntum taamaluuna ibnu kathir nee na acmaalukum alsaalixa kaanat sababan li sumuuli raxmatillahi iyaakum fa innahu laa yadxulu axadun aljanna bi camalihi walakin bi raxmatillahi wa fadlihi wa innama darajaatu yunaalu eh, tafaawutuha bi xasbi al acmaali alsaalixaati loolu ba demee ci muxtasaru ibnu kasir jukkib ñetteel ba xatum ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom benn wax jooji ma nga ci lan la ibnu kasir wax mu ne la dugal nit ña aljanna mu ne mooy jëf yu baax yi nekk sabab bu daj kàpp yërmande yàlla ji waaye it aljanna kenn la fa jëfam dul dugal lépp waaye mën yërmande yàlla ak ak mbaaxam lay tax nag jëf baax mooy suñu duggee biir aljanna ku ëpp lay jëf yaay ëpp ay daraja yaay gën a kawe ni ngeen ko xamee ci àdduna si rek wa fil xadis maa min ahadin illa wa lahu manzilun fil janna wa manzilun fin naar yonent bi alayhi salaatu salaam nee na koo seen mooy dox am na ñaari kër kër goo xam ne ña ngi ko ko dencal ca ca aljanna ak kërug sawara mu ne koo seen muy dox rek am na ñaari kër yooyu ku weddi yàlla ñu jox la sa kër foofa ku nangul yàlla ñu jël sa kër jox keneen ku weddi suñu borom tabaaraka wa taala lakum am ngeen fiihaa ca aljanna ja faakihatun kathiira foyteef ju bari foyteef mooy fruit mooy ñoom pom ñoom ñoom orange ñoom ñoom mandarin ak lekk yooyu nga xam ne la léeg-léeg bu nit ñi añee ba noppi di ko jëfandikoo léeg-léeg nga romb ko ci tali bi bëgg ci la bu dee aljanna moom kenn du ko jaay parkilo kilo déedéet lakum fiha faakiha ku dugg rek am ko kasiira ju bari nag ku dugg rek am ko kasiira ju bari léeg-léeg nga dem ci benn hôtel walla yooyu dal ga nga fay dal moo lay may àqu boo añee ba noppi ñu indi la yooyu nga cay teg waaw allah aljanna it nun la dugg ga nga fay dugg rek moo lay may saa boo soxlaa ci yooyu rek man caa am lakum fiha faakiha kathiira am ngeen ca foyteef ju bari minha taakuluuna ca ngeen di lekk bu yàlla ne woon taakuluuna kon dana am bis mu jeex waaye bu ne minha mooy lu yàgg-yàgg du jeex minha taakuluun ndax min day jóge ci mbir am lum fa bàyyi soo ne woon benn waay may ma min taamika bukkute nga ne ko may ma taamaka may ma min taamika mooy dala ci may am lum dese waaye boo ne ko taamaka mooy danga ne ko may ma lépp moo tax lakum fiiha faakihatun kathira minha taakuluna ca ngeen di lekk lu yàgg-yàgg nag duñ ko jeexal lu yàgg-yàgg duñ ko jeexal mukk tabarkalla mufassiru ne ñu ne yaakulu ahlul jannati min baadi thimaar wa ama al baaqi fa ala al asjaari ala dawaam dafay sax ba faw garab yi duñ rak mukk mukk mukk lii ñu lekk ko la ca des des ca garab ya di taaral aljanna ak di ko rafetal wa fi lxadis laa yansicu rajulun fi ljannati min thamariha illa nabata mithluha makaanaha tabarkàlla hadis boobu Euh, ba demee ci tafsir abi saud jukkib juróom xatum ñeent fukk ak juróom-ñeent addis baa nga ci mu ne fépp fo watte ab doom ci aljan rekk beneen doom sax fa